والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan c s moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu boobule ba yeneen i jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaayu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañu te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee C3S mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun الرحمن الرحيم بشرى لنا قد أتانا الجود والكرم لما استهلت علينا الأشهر الحرم الحمد لله الذي أحط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيمه فوجب أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama salatan wa salaaman daa'imayni wa talaazimayni abada amma ba'd fa yaa ayuha nnaas usikum bi taqwallah wa axdirkum an ilxataaya kay tanaalul xayraati walhuda wa aksiru fi haadha ash-shahri min as-siyaam wa aksiru fi haadha ash-shahri min as-siyaami wa quumu fi fi dalaami al-layli wan-naasu niyaam hanii'an liman amila wa jadda fiihi mujtahidan alam yaani lil uzni samaa'i an tasmaa alam yaani lit tarafi al-jaamidi an yadma an yadmia alam yaani lilladina aamanu an taxshaa quluubuhum li dikri llah yaa haaza alam taalam anna rajab anna rajaban awalu shahri shahri alfadaili jaalahu llahu lilxayrati mawrida wa fi lxadis anna duaa fi rajabin mustajab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada alhamdulillahi alladi xadda ala taqwa wa wassa wa axata bi kulli cheyin ilma axata bi kulli cheyin ilman wa axsa wa faddala ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala saa'iri al-umam wa asra bi nabiyihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa ahmaduhu subhanahu wa taala wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma fa salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashaabihi alladina naalu bi suhbatihi fadaa'ila laa tu'addu wa laa tuhsaa amma ba'd fa yaa ibadallah ittaqullaha wa xaafisu raximakumullah wa alamu an wa xaafisu wa xaafisu raximakumullah wa alamu wa amalul xayra fa inna xayra amalikum salaat wa anni axsha alaykum wa alaykum wa anni axsha alay wa alaykum an takunu mimman qaala fii fii maqaalan yatta'izu bihi man kaana qalbuhu xayya fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wa tabaxu shahawaati fa sawfa yalqawna gayya wa fi lxadis alsalaatu imaadu diin fa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad hadama diin yaxfiru llahu lii wa lakum wa li jamici almuslimin